moo di ne tey ginnaaw ñett ay bés déglu nañ ñaar fukki nit ak juróom-ñeent mais li ñu seetlu ci déglu bi am na ñu bëri ñu fi nekk ñoo ko compliqué ci tribunal mooy am na ñaar fukki nit ak juróom ñoo xam ne xamuñu ko leen ñeent ba ñaar kon ñuy joxe taxaw seetlu lu tax dossier bi ñu tuddee ko Imam Aliou Ndao su nekkoon ne Imam Aliou Ndao ñëpp xam nañu mën nañu ne dossier na tudd Imam Aliou Ndao et les autres mais ñi ci ëpp xamuñu ba pare ñu tuddee ko kon bu nguur ñu defee loolu am na lu mu cay nam am na pexe yu muy wut parce que dossier balaa ko tuddee nit day fekk moom mu xam ñëpp ñëpp xam ko mais ñu déglu ñaar fukki nit ak juróom-ñeent nit ñoo ko xam. daara la yor depuis lépp fanweeri at jàngale ci kenn ku dul ñaari nit a ci jàng ñaar te ñaar ñi jàngal jaar ci daara ji ba ñuy dem tàgguñu ko gëjoon nañ fa depuis fukki at mais mënoo sukkandiku ci loolu pour tuumal ab kilifa ab jaamu yàlla ak koo xam ne day liggéeyal askan di yar ay gone ci kaw pexet nguur joxu ko dara uutiwu ko bitim réew day béy di kon tudde boobu ñu jël tudde ko dossier bi am na lu ci naan la ñuy wax ne loolu yëpp pexe nguur parce que nguur gi la buy mooy wone ne ñi ñuy jàppee bitim réew bu ñu demee bitim forcément am na koo xam ne mooy seen kilifa demee wuñ seen coobare bopp te kon ka am na ci ñaar ñoo xam ne mos nañoo jaar daaram te ci na koo xam ne dañu jàpp ne ku la ñoom loolu lañ jàpp te kon ka jaaram kon ñu ne nañ bàyyele layoo bi nañ koo ko bàyyele nañ ko ko bàyyele

am na ci ay wax yoo xam ne ay wax ku daanu ci saret la teguwul fet ñu ne wuy toolam yi nekk dëkk bu ñuy wax jàmbul ñi dem ci jiyaat bi euh, foofu lañ leen di entraîné te jàppuñ fa kenn tool ba gisuñu fa bâtiment gisuñu fa kenn demuñ ca borom dëkk ba laaj ko kenn waxuñ sax tool yi fa mu féete ca biir dëkk ba tey na xel moo taxoon ñu sàkku ñu defar PV nañ ñëw wax ñu ñoom tool yooyu fan lañ ko gis. te ci doon ñi dem ñëpp xamuñu ko. démb kon yenn nit dafa jaar dem nañ ma ko parce que ci fanweer rek benn yi nekk fi ñuy àtte ñaara ci dëkk Kaolack te ñaar ñi demuñu Saliou Ndiaye moo ci dëkk Kaolack la Anne ñi si des yëpp dëkkuñ Kaolack genn wàll ji Dakar lañ dëkk genn wàll ji au lañ dëkk te moom mu yore daal depuis fanweer yàlla benn Kaolack waa nekk ci ku ci dëkk kenn te kilifa la ca def benn doomam bokk ci ay doomam yëpp a ngi ci sàll am nañu ëpp fanweer yàlla ñeent fukki doomam yëpp a ngi sàll ay jàmbaatam a ngi ci sàll ab jihadiste dana nekk jihadiste ay doomam ay ay mbokkam ay jabaram ay soxnaam sax la ñuy ñëw loolu fan la ma a mën loolu du may waxu daanaka sax waxu kasaw kasaw yooyu la nguur yooyu su nekkoon imam jihadiste la lu leen tere ñu tëj daara ji jaa fa ba tey ba tey mu nga fa ay journaliste ngeen def na daanaka daara jaa nga fa su doon jihadiste nit kay doo gis daara joo xam ne dañu fay former ay jihadiste nga ba ko fa loolu la ñuy nax. lu tax ñu bàyyi fa daara ji foo xam ne lii ñuy def dafa jaaduwul jàng fi dañ ko war a tëj te man bu jaaduloon man mii damay nangu ñu tëj parce que lu amul njëriñ luy yàq askan luy yàq ay gone askan dañ ko war a tëj na fa de raf ci doole moom école boo xam ne nguuru Sénégal a ko fa yi ñuy imam moo leen suuf si ñu tabax ko ci biir taalibe yi bu ñu xëy dañuy jàng français bu indil ñëw école baa nga fa ba de xanaa kon jàngalekat yi ils sont complices donc daara ji ndoorom la nekk yéen xam ngeen kaw la di mos ngaan ngaan ak police ndooram soo yuuxoo ci daara ji ñu dégg la lu tax depuis ñaar fukki at lu tax police ndooram jàppuñu fa kenn ñoo jàpp fa kenn pour wane loolu yëpp ay sos la xam naa nit boo xam ne jaar na suma daara fukki ma jàngal ko benn nit ñaari nit ñetti nit ñu nekk seen magum bopp def la leen neex loolu responsabilité imam nekk kon mënuñu topp imam ci kaw am na ñu dem. ou amna ku dem ko xamne ne fa na jaar daara ko la da ngay xaar ba gis lu mu def lu ne fam nga ne li ya ko def fam ya ko def beurep sangam ba sangam ni nga ko def ba nga koy def ya diw ak diw ko def chambre criminelle du fuñuy ñuy ngam ngamu nit dedet fuñuy até ay jëf la tribunal waxna ko léegi chambre criminelle du juridiction théologique dedet tribunal kenn du fa xool nga mu nit nga mu nit intéressé wu tribunal tribunal li ko intéressé mooy nit ñi lan lañ def loo xam ne yoon daf ko teel mais na nga gisee charia na nga gisee jihadisme booy julli est-ce que da ngay wane ginnaaw est-ce que da ngay teg sa loxo sa dënn est-ce que da ngay wàcc est-ce da ngay ah, booy def fàtte da ngay biral ah, basmala bi loolu loolu yoonu tribunal la loolu suñu constitution